sommes aujourd'hui le 31 ju juillet 2022, un jour qui était tant attendu, aussi bien pour les acteurs politiques que l'ensemble de la population sénégalaise. Donc nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'en être là aujourd'hui, mais surtout de constater que depuis le début des opérations de vote, cela se passe très bien. Euh, le Sénégal a connu plusieurs euh, moments de vote. Euh, qui sont améliorées de jour en jour. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une parfaite organisation des opérations de vote. Puisque vous entrez dans les centres de vote, nous voyons que c'est très bien organisé, les bureaux sont bien aménagés, euh, l'espace aussi est bien utilisé, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bousculade et également euh, les siégeants sont à leur place, les mandataires aussi font ce qu'ils ont à faire Et euh, tout ce qui gravitait d'habitude autour euh, des centres de vote, nous ne les voyons pas. Donc cela présage d'une excellente organisation et nous espérons maintenant que les électeurs viendront massivement puisque moi-même, avant de venir voter, vous avez vu déjà, ils n'étaient pas nombreux, mais j'ai fait le tour des centres de l'ensemble de la commune, nous en avons cinq, et euh, c'est la même situation partout au niveau des centres de vote. Donc euh, nous nous félicitons de cela et espérons que cela va continuer tout au long de la journée, mais surtout que les électeurs puissent massivement sortir, exprimer le choix. processus aussi se le il processus de, se déroule dans le calme, mis à part euh, quelques petits incidents mineurs qui sont normaux, mais le processus se déroule globalement bien. Maintenant, il y a des constats que nous faisons par rapport à, à certaines dispositions, ça nous le releverons, mais vraiment pour euh, des opérations de vote, nous pouvons dire que globalement, ça se passe très très bien. Oui, nous sommes confiantes. Nous avons fait une bonne campagne, la coalition Benno Bokyakar. Nous sommes allés à la rencontre des populations pour leur dire d'abord ce que nous avions fait parce que nous avons un bilan à présenter. Nous avons présenté notre bilan nous avons défendu les investissements que nous avons eu à faire par ordre de priorité parce que le contexte mondial exige qu'il y ait plusieurs défis à relever, plusieurs priorités en même temps. Mais je pense que aussi bien dans les politiques d'inclusion et d'équité territoriale, aussi bien dans les politiques qui euh, touche au capital humain et qui touche à la structuration de l'économie. Nous avons eu à faire des prouesses qui nous ont permis déjà avec les deux crises que nous avons eues, que ce soit la Covid ou la guerre en Ukraine, que nous ayons d'abord pu nous stabiliser à au-dessus de zéro taux, mais ensuite que nous ayons tout de suite euh, pris la relance de la croissance. Je pense que nous sommes confiants maintenant. Hormis cela, nous avons présenté des représentants à la mandature qui sont connus des populations, pour d'autres, on ne les connaît pas et je pense que l'appel que j'aurais à lancer, c'est que les populations sénégalaises élisent euh, les personnes qu'elles connaissent. Parce que c'est ça aussi, avant qu'une personne puisse vous défendre, il faut qu'elle vous connaisse. Mais si vous ne connaissez pas vous-même la personne qui doit vous défendre, imaginez-vous ce qu'il en est de la personne. Et aujourd'hui, les défis nous imposent vraiment de faire les bons choix, des choix de raison, mais surtout des choix de développement. il euh, n'y a pas de pression au niveau de votre coalition avec ce qui s'est passé pour les élections euh, locales Non, pas de pression, parce que d'abord, il faut comprendre que la coalition Benno Bokyakar, au-delà de respecter le choix des urnes, mais également respecte la démocratie, la vivacité, le dynamisme de la démocratie. Et une démocratie, ça, ça suppose une majorité, une opposition et peut-être des arbitres. C'est ce que nous pouvons considérer comme les non-alignés. Donc nous ne pouvons pas avoir la prétention de prendre tout le monde ou de faire adhérer tout le monde à notre cause. La seule prétention que nous avons, c'est qu'en âme et conscience, les politiques de développement que nous exécutons, que nous les fassions pour tous les Sénégalais et pour toutes les Sénégalaises. Parce que c'est ça le premier sacerdoce et c'est ça l'ambition du président Maxa. Donc nous n'avons aucune pression et nous ne redoutons euh, aucun résultat sorti des urnes. Ce que nous savons, c'est que nous avons eu à faire ce que nous devions faire, que les populations, témoigne de ce que nous faisons à travers une élection et que comparaison n'étant pas raison, les résultats de l'élection locale ne peuvent en aucune façon euh, détonner ou euh, indiquer euh, le... Mais non, puisque vous l'aviez vu, au contraire, c'est des tendances qui seront inversées. Parce que durant les élections locales, nous tous qui étions de la majorité, nous sommes partis en note dispersée. Aujourd'hui que c'est le Sénégal avant tout qui en première ligne, nous nous sommes retrouvés autour de notre sacerdoce, autour du sens originel de notre engagement, à savoir être là pour les populations. Donc nous avons retrouvé l'unité. L'unité étant retrouvée, nous devons largement être majoritaires. Nous espérons que c'est cela qui se passera à 18h, Inch'Allah. sant yàlla bu baax ndax tey fanweeri fan ak benn ci weeru juillet nekkoon na bés bu ñëpp doon xaar acteur politique yi xaar nañ ko Sénégal gépp xaar nañ ko kon dañuy sant sunu borom bu baax bim ñu mayee ñun ñëpp ñu fekkee ñu tal beneen bi mooy également seetlu nañ ne élection yi opération vote yi ñu gis tey nekk na organisation bu mucc ayib ndax ci suba balaa may ñëw votel mbooleem centre yi nga xam ne mi ngi fii ci biir commune Sicap Liberté nekk ci département de Dakar wër naa ko juróom lañ dugg nañ fa xool nañ bureau de vote yi xool nañ environnement bi te liñ fa gis mooy dal liñ fa gis mooy jàmm mais surtout liñ fa gis mooy organisation boo xam ne nit ñi nga xam ne ñooy ñëw di vote dinañ vote te kenn du laal sa morom kenn du buuxanteek sa moroom kenn du taqal sax sa moroom bay wax mu lay dégg loolu nag dafa am solo ci vote ndax day dalal xel euh, jàmm ji mi ngi fi mais surtout euh, dina tax euh, kenn ku ne sa xel dal ci résultat yi génn ndax élection loolu moo ci ëpp solo gannaaw bu coalition ñi nga xam ne ñi ngi jogante yëpp kenn ku nekk dem wan askan bi lan la amee wan ko lan lañ ko bëgg proposer ak yan nit lañ leen teg seen kanam pour ñu tànn leen li ci des mooy bàyyi nit ñi ci xel mu dal ñu voté kon maa ngi ñaan askan bi yëpp ñu génn massivement ñu vote ndax vote dafa baax ci démocratie askan wi di cautionné di noté li nga xam ne moom la ñiy jiitu di def ndax day mel ni examen ñun nag waa Benno Bokk Yaakaar suñu xel dal na ndax 2012 ba léegi la ñu teg président Macky Sall ci bopp réew mi 2012 ba léegi muy ci wàllu équité territoriale ak inclusion moo xam sociale financière wala économique président Macky Sall taxawee na ci taxawaay boo xam ne nee na na ñëpp bokk ci réew mi na ñëpp bokk ci liy tabax réew mi na ñëpp mën a yëg li nga xam ne état bi mi ngi koy def jëmale ko ci askan ci wàllu aussi capital humain moo xam ci wàllu jàng bi moo xam ci wàllu faju bi moo xam ci wàllu infrastructure de base yi yooyu yëpp boole na ko ci ay priorité am yi nga xam ne ñu ngi koy gis fu ne boo gisee Puma nga gis Promoville nga gis bourse de sécurité yooyu yëpp dafa jëm ci wàll boobu rawatina rek ci ndax li ñuy woowee structuration suñu économie maanaam ñuy def ay investissement yoo xam ne ci ay secteur ak ci ay banqaas yoo xam ne dina gën a mën a yokk suñu koomu réew ba ñu mën a jël ci alal jooju di ko dugalaat li ñuy wax redistribution ci yeneen secteurs yi te loolu def nañ ko boo xoolee infrastructure yi yu mel ni TER yu mel ni yeneen ak yeneen yëpp day bokk ci luy yokk koom te li wane loolu yëpp ne économie bi taxaw na dëgër na mooy génn nañ fi ci ñaari crise yu metti lu mel ni mbas mi ak lu mel ni xeex bi nga xam ne mi ngi wéy di am Ukraine te terewul réew maa ngi taxaw kon yu mel noonu yëpp bu amee ba ñu ne tey ne ñu xayma ñi doon examen lan lañu ñu war a am soxlawul xuloo soxlawul xeex état bi nga xam ne mooy organiser élection bu ko defee ba mu mucc ayib ba pare ndax bii ñu gis moom wax dëgg yàlla mucc na ayib na nit ñi génn voté kenn ku nekk far fa nga war a far ñun nag waa Benno Bokk Yaakaar amuñu sikki sàkk amuñu tiit amuñu jàqare ci ku ñu voteel ak ku ñu votewul ndax démocratie aussi ñii dañuy ànd ak yow ñii duñu ànd ak yow am ñoo xam ne saa su ne rek dañuy far fii mbaa ñu far fee lii nag ñun lii suñu yaqin mooy 2012 ba léegi amul benn élection boo xam ne ñi ngi ko fiy def te askan wi wax dëgg yàlla joxul bopp président Macky Sall kon ñi ngi ñaanaat aussi loolu di wéy ba nga xam ne yéene ak liggéey bi nga xam ne mi ngi koy naal jëmale ko ci askan wi ñu mën ko motale te nekk loo xam ne day law ci ñëpp ndax ñun ñëpp benn lañ Sénégal benn bopp la kenn mënu ko